guddi gi dafa nar a gudd te dafa nar a neex nee naa leen route des Almadies xam ngeen saa yu ñu ko langee euh, ci télévision Futur Média xam ngeen ni du yomb ci yéen téléspectateurs yi du yomb ci ñun euh, may dalal ki nga xam ni moom moo di monsieur Mbaye Dieye Faye seng-sengi biram géey Kewe yaay Awa jaañ ba géwélu Ndakaaru maa ngi lay nuyu Alaaji Mbaye Dieye Alaaji Boubacar ziar naa la nuyu naa la et kontaan ci euh, la nuyu la lool delloo la ko di ziar Sénégal yëpp ah, ah. wala ma ni Afrique yëpp ah. wala ma ni le monde ance ah. di baal ak ñëpp di déwénati ñëpp di ñaanal jàll ma ñëpp di ñaan yàlla nangu suñu koor amin amin amin nongul ñu sunu ay julli amin amin amin eh, di ziar nag sama sëriñ sëriñ Babacar si waaw si Malick Bakar ak dara man maam aram lo Kumba Caam Boubacar ku ku ziar sëñ Babacar si ziar nga maam kër Cheikh Madou Bamba dëgg la ziar nga maam Baye Laay dëgg la ziar nga maam Baye Niass dëgg la maam Cheikh nga daal Sénégal yëpp dëgg la ziar ñëpp et ziar nag suñu président de la république ñaanal ko jàmm. amin amin waaw et di ziar opposition bi. Mhm. te naan leen Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. mais ah. mais mbay Mbaye foofu baax na de ziar président ziar opposition bi. waaw waaw parce que xam nga euh, ñoomi neen la. dëgg la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. Euh, waaye nag dafa am ko fi yàlla teg nag ki fi yàlla teg nag nan ko ñaanal. nañ ko respecté noonu. waaw respecté ko noonu. Uh-huh. waaw waaw. Euh, Mbaye gannaaw ba ma la nuyoo tey korite gi naka la demee tata maam nu mu def xam nga tata maam moom sama xarit la <laughs> moo tax man la tata maam tey nu mu def. yow def laax. yow def yow def laax soow. soow. boo xam ni raisin yi dañuy tëmb ci kaw soow mi. déggal loolu. Eh, raisin sec waaw julli ji. mais Boubacar ma euh, waa kër Seck Seck yëpp. ndeysaan. Euh, ziar sama yaay ñaanal sama baay euh, ziar sama tante Ndey Caam mu yàgg fi te wér ziar nag euh, artistes yëpp nag Boubacar. dëgg la be ziar la yow mi ndeysaan ñoo far yow. xam nga ne dina ziar nag sama xarit. dëgg la sama jumeau. Uh-huh. muy le président Youssou Ndour. te muy dëgg. te muy dëgg et maa ngi koy ziar naan ko big up mais ah. mais yéen ñaar dafa am fan yi lu ngeen def da ngeen def Asa Lo Asa Bombe. def tulli leen bal bi mu daw mu dem ci camp wu ñële te bu ngeen jubee seen camp def leen ko rajax rajax loolu mooy lan moom. waaw waaw xam nga dana toll nag ci moment coupe du monde mondial fi mu nekk boo demee Russie ma ngay bax. dëgg la. mel na ni euh, yoonu almadi bi ci kanamu TFM. waaw maa la ko wax. et donc nag sunu ay gaynde sunu ay lion sunu ay jarbaat ñii di ay doom ñii di ay sët ci ñeneen ñi dem fa pour représenter li nga xam ni. moom mooy Sénégal sunu njiitu réew jox leen drapeau bi pour ñu fas yéene ko màggal ma dégg ko sax mu daal dina dina leen gunge et kon moo tax nag Youssou ak Super Étoile gunge xale yi son boobu yee ma ni leen rajax-rajax asalo asa bombe bal bi jëm ca kaw jëm bi boor bu mu ñëw sunuy camp waaye ña dem ca camp wu ñële na cax yi bax lii de la na caax yi bax na caax yi bax mais mais mais mais mais mais Mbaye euh. footballu asaaloo asa bombe moo xewi quoi moo tax moo ma jaaxal asaaloo tulli footballu tulli moo xewi Mbaye léegi xanaa xooloo match tey bi waaw man dama dama dama dama waaru quoi dama ne mais attends euh, mais Cristiano Ronaldo lu muy def nii du nit dafa feebar mais boy bi lan lay def nii dafa dof xam nga nag li ma gën a neex ci moom moom mooy euh, dafa mat liñ ko liñ liñ ko liñ ko jox leader la leader la quoi comme ni nga nekkee leader Youssou sundu nekkee ko leader ci seen domaine. waaw noonu la Cristiano Ronaldo nekkee. mais gisoo bi espagnol yi égalisé mu song arbitre bi ñu laal ko mu ne ko joxal kii carton ñu wax mu sànni loxo parce que boobu dënn ba ma ngay bax. dëgg la parce que bëggul ñàkk match bi mais du nit ah. non Cristiano benn la non dañ koy moom moom vraiment chapeau quoi. Ah, ah. Ah, mais mondial bi neexagum na benn match six buts. man de ma suba gis lu mel ni. <laughs> xam nga Espagne. mais Maroc sàggan nan nag. Maroc sàggan nañ de. ba Iran yóbbu ko la Bichira ma mosuma gis lii. léegi. Ah. loo gis ci Sénégal yow. Séné mais. cim tuddee nañ la ko. <laughs> jërëjëfati waaw waaw gaa yaa ngi. Boubacar yàlla jàmm lii mooy Sénégal Ah. yaa ngi def émission en direct gaa yaa ngi romb ci almadi bi di taxaw ñëpp di la nuyu. di apprécier li nga sol ah non li nga sol. non lii xam nga sama goro bi Abou Gueye. waaw moom moomay moom mooy jox yi mais nag Xaadim Mbay moo fi jaar. ah Xaadim Mbay. Eh, ci ci kanam tuuti nag. alaaji ku la solal. Xaadim Mbay moo ma moo ma ñawal Xaadim Mbay moo ma ñawal. Alaaji ku la ñawal Xaadim Mbay moo ma ñawal. Alaaji ku la ñawal. waaye ci kanam tuuti. Ah. da damay def nii nga def bu non yow dafa am xam ne nag maam Modou Diakhane fa jaar waaw dafa am fu ñu war a ànd. non maa ngi ñëw yow kay dafa am fu ñu war a ànd. non mais dama loo gis ci équipe bu Sénégal bii di waajal. Euh, Boubacar. ak suñu poule Colombie la ñu am am am Pologne Pologne am Lewandowski bu baax am Gluck am affaire yu baax loo ko gisee yow. waa mais xam nga li leen li leen wax rek la ne leen mondial la coupe du monde la. Mhm. coupe bi dañ koy xëccoo. et bu leen ko bàyyeeg ñoom. dëgg la yàlla def ñu am équipe boo xam ni de passage may big sunu coach muy Alioune Cissé et ñaanal ko moom tamit di ko félicité parce que def na nag Boubacar lu kenn mës sa def nag. te muy dëgg. football ci équipe nationale yor équipe bi yóbbu ko mondial. dëgg la et loolu c'est à c'est à saluer. Mm-hmm. vraiment nga gis match am yi mu def yëpp ba keroog rek lañ lañ ñu xaw a mais baax na. parce que bañ ñu bañ ñu gars yi làmbee noonu après match ba sa topp dañu daal di caw gars yi li may wax moom mooy ñaanal xale yi mhm. yàlla bu ci kenn blessé amiin yàlla na ñëpp wér ci match yëpp mhm. parce que nag dañ ci am tamit nag ndaanaan boo xam ne mi ngi ci équipe bi et ça il faut le dire muy euh, doomu Casamance bi mhm. wax fa dëgg yàlla ah. il fait la fierté du Sénégal. ah Sadio. ah parce que dafa football bu yàggul benn final boo. xam ne Champions League. ah mais attends. Mhm. moom mooy Sénégalais bi nga xam ne nag. moo njëkk a dugal ah, Champions finalu Champions League. waaw jàkkaarloog ñoom. Euh, Ramos ñoom ñoom Ramos. waaw ay ay. Chris Carvajal Chris daal di xatraayu seen kanam. Modric. mais non attends Sadio. big waaw big up ak suma beneen doom nag xam nga nag muy. Mbaye Niang moom su waaw moom la rek. mais ñoom ñëpp suñu gars waaw ñoom waa xale yëpp xam nga Diao Balde booy nuñ koy woowee. naka. pasta. but de pasta. pasta pasta pasta. et c'est pasta qui a marqué. pasta but pasta. mais c'est ça. ah et puis accent italien moo tax booy naan ko pasta. mais mi ngi noonu xam nga pasta mooy pat. be moom mooy pat. waaw <laughs> Idrissa Gana Gueye fii. waaw mais xam nga waaw Cheikhou Kouyaté fii Cheikh Ndoye fii. Cheikh Ndoye lébu bi. ah lébu lébu tëngeej bi fii. xaadim ah, ci camp ah, yi xaadim nag jàmbaar ah, la Kara nekk Kara Mbodj Kara nekk général bi wallaay wallaay Kara jot naa mayo bi wallaay merci kii nu mu tuddati eh? Ismaïla Sarr jot naa mayo bi ah oui il magnifique il rek wàcce na bal bi wàcce boo xam ne dugal bii bu rëy waa ko wax bii boo xam ne dinañ ko wax ci ay génération génération waaw xam nga nag euh, na gaa yi pare de te xam ni équipe bu Sénégal bi dunu dunu dunu dunu match bi mais Youssou Ndour dafa am lu mu ca de. non duñu mbojo mbojo. mukk jamais. duñu mbojo mbojo. non non non non. am lu mu si yëkkati mbay. mu ne. mu ne ñëpp ànd ak ñoom. waaw su fukki nit di gas. fukki nit di suul mu ne taximaan yi dañu ànd ak ñoom. ñëpp ànd ak ànd ak yi dañu ànd ak ñoom. réew mi ñëpp ànd ak ñoom. mag ñi. Mm. xale yi. Mm. ndaw yi. ba ci sax sëriñ saa ngi ñaan. ndeysaan seeni doom lan ñii seeni sët. il a fait un appel à l'unité. oui. il a un appel à l'unité autour uh -huh. de l'équipe nationale ça parce que euh, gi nga nation tax doo ko mu ne fukki nit fukki nit di suul mm. Boubacar am ñoo xam ne nag duñu bëgg équipe bi dem fenn mm. loolu moom na ñëpp nag àndandoo def nanu defoon 2002 xol yëpp doon benn ñu ñaan ñu ñaan parce que nag drapeau moom moo dem foofu ña fa nekk ñëpp seen drapeau moom moo fa dem te ku sañoon sa drapeau mooy dem ci kaw et kon nag xam nga sunu xale yi vraiment bu ñuul bu leen ñaanalee big up leen mën nañoo dem fu sori quoi vraiment. mais Mbaye euh, léegi ci guddi gi da ngay tëggi euh, fële ca Golden. dëgg la tey da nga am soirée sénégalaise ca Golden. la tey xale yi dañuy def tay yi. góor ñi def grand mbubb yi man Samba Sembe laay maye <laughs> maa ngi ñëw léegi sama tënee ngi ci biir euh, mbay ah. dañu war a dem Golden léegi-léegi au point E te loolu lu bees la loolu lu bees la c'est une première waaw Boubacar foofu mos kenn mos faa tëgg live moo tax bi nga defee bande annonce bi ku nekk ma woo parce que Golden mm, euh, discothèque la bu am maanaa nag bu rafet sous terrain bu rafet vraiment am maanaa lool boîte de nuit dàq ko dëgg la waaw parce que boo doon jël boîte yi ci Almadies dem ak ci moom day mbëkkanteeg ñoom parce que boîte dàq ko ci àdduna et orchestre mësu fa taxaw et Fara c'est notre ami Fara Ndiaye da daan waaw da daan jouer rek vendredi samedi ma ni ko Fara tu sais dafa am lu xew di jouer vendredi samedi teg sa boîte de nuit no am ay emploie di leen fay ñu ciy waxtaan di ci xalaat di ci waxtaan di ci xalaat ba mu réaliser wu surtout cinq-cinq bi fas yéene fa njëkk a teg nag orchestre comme ni ma ko defee woon fii ci place bi di Nirvana. dëgg la def ko K Club def ko Papaya. Mhm. parce que Boubs maay artiste bi njëkk dugg nag Almadi. waaw waaw teg fi orchestre. maa fekke waaw yaa fekke donc noonu nag laa koy defee Golden. tey Korité la ñëpp ngi waajal pour dem Golden. mu nekk xawaare. xalam ay marimba ak sabar ak i cama yëpp àndandoo. musóor yi jëm ci kaw garabu bi comme nii. waaw waaw waaw looloo fa nar a xew. waaw tey du yomb. du yomb bu ndee ba ca kanam. Uh-huh. tànn béer ji daal di jolli. ñii lëmbal jaar nii ñii lëmbal jaar na le ñii dagan jaar nii. ñi ñu dajee mais mbay waaw euh, Mbaye depuis blocage. yes ñi ngi xaar cassette bi. Mm-hmm. mais mbay fu mu toll. mais Boubacar. mais xam nga blocage bu mu génnee réew mi yëngu. <laughs> réew mi yëngu. waa léegi mbay <laughs> eh. débloqué ñu. waaw góore waay gis nga déblocage boobu nga ne débloqué ñu. waaw mi ngi ci album bi bees bi. Eh, boobu est-ce que xam nga sama album man pare na billahi def na sept ans maa ko téye def na sept ans hi how are you hi hi hi maa Sénégal a ngi waaw mais chinois yi sax yes waaw xool ko ah ñoom ñëpp ci biir ndeysaan hi come on ah. come on come on say hi say hi say hi kaay kaay kaay come on say hi hello hello hello hello <laughs> ndeysaan wan ma ñooñu wan ma ñooñu waay waaw waaw ñëppay jaar seetaan si nag waaw waaw xam nga rek spectacle lu bedd ah, moom ñëppay jaar non da ngay chinois yi dañuy ñëw mi ngi noonu waaw euh, bubs xam nga lii day wane ni réew mi jàmma ngi fi dëgg la du dëgg xool leen ngi ni mi ngi mel réew la def lii ah non ah. jamais mais fii mooy Sénégal bubs euh, mu am foo tollu woon déblocage boobu nga wax mi ngi ci album bi boobu suma album pare na def na billahi def na six ans maa ko denc li taxoon ma denc ko moom mooy piraat bi dafa bari woon ci dëkk bi tu vois et génne benn morceau rek xew single dëgg la tu vois euh, ma naa ko téye mais dinaa ko génne euh, bu may jox gars yi par ñaar sax parce que yi si nekk neex na nag ah mbay neex na de mbay dafa am loo ñu tàmmal neex na de dafa am lu ñu miin ak yow. wallaay dëgg la. ah wallaay dëgg la parce que mbay. Euh, fii nga ñu fi indiloon bool ci musique. waaw waaw raas. mbay fii nga ñu fi indil bool ci biir musique. raas ñuy musique ba si yàgg musique ba yëpp wàcc. dëgg la ñu mixé lépp wàcc bool ba génn. wallaay. raas ñëw raas. ñu tëgg ci bool bi lu neex neex. waaw wuy li. Hmm? waaw waaw. yaa ngi dégg Sénégal a ngi filmeel ba mu neex la. waaw waaw maa la ko jaabante leen doxantu leen. parce que Boubacar Diallo toog fii boobu. Uh-huh. et donc bool boobu daal di ñëw ci raas. mais est-ce que xam nga billahi album bu bees bi ma téye denc ko. boobu yi ay xeetu tëgg yoo xam ne ngi ci ak musique boo xam ne ak ay wax yoo xam ni mais nag yuy yeete. yuy yeete. parce que dañu toll foofu. dëgg la fecc mi na neex mais wax ji na yeete. dëgg la. c'est important. mais mbay yaa ah. ñu joxoon bu ko forcer. waaw waaw ma ne ma ne kenn du ko forcer. kenn du ko forcer lu nu forcer neexul. lu ñu forcer baaxul. yaa ngi dégg. waaw bii nag ma dina doole. dëgg la buur yàllaay borom doole. Uh-huh. billaay yàlla buur bi kenn du yow. yàllaa njaboot te mën a muñ. Uh-huh. moo ñu jox Seydina Muhammad. te muy dëgg. waaw waaw loolu mooy doole. ma daa dina kenn amul doole ku dul buur bi yàlla. Uh-huh. waaw. kon daal ñu xaar ñu xaar single yi wala di nga génnee di nga ko génnee benn CD boo xam ni. ñëpp dinañ ci mën a jot. waaw parce que boo xoolee ci loolu xam nga euh, faroon nga ci weeru weewu bay ni Mbaye Dieye Faye mi ngi pare fu ñuy wax grand théâtre dëgg la mais loolu du doon anniversaire ah ah bu boobaa dañuy màggal at yu ñu def ci musique màggalaale alaaji Vieux Seng Faye ak alaaji Doudou Ndiaye Rose et bu boobaa vraiment bésu Ndakaaru lay doon bés kooku bés bu mag lay doon. bésu Ndakaaru. grand théâtre waaw. Euh, mbay euh, gannaaw tey jii léegi nii dañuy dem foofu ca Golden. Mhm. mais le Golden bi da nga koy continuer j'espère. bien sûr que dama koy continuer euh, bu weesoo tey bu ñëpp ñëwee ñu daal di àndandoo foofa tey ci korite gi après nag dan fay daje tous les lundis. désormais désormais mais lundi bi dañ koy tëb. Mhm. comme dañu wori dañuy jëlaat doole. ba nga leen di bëri ba ca topp. incha allah waaw incha allah et eh, boobu nag xamalu ci neex. Eh? wax nga ko boobu ñëpp góor bu defee jiin. waaw ci kaw. waaw mu def ci. costume africain costume africain. moo xam vax la. moo xam cuub bu ñu dagg la. moo xam moo xam yu bees yi xew la yu bees yi xew la. jigéen eh? bu defee collant. def tay baas. bu vax. wala bu choix. daal di mësooru mu jëm ci kaw. été bi vax. été bi vax. parce golden. looloo fay xew ci xawaare chaque lundi waaw bu la neexee def jéen def sa carax gàddu sa sac sac bu fashion ah. mais ci kaw solu solu bu fashion waaw ci def maquillage bu fashion bu fashion gaare sa oto bu fashion bu fashion chaque lundi léegi tama ji ak sabar yi bu demee ba ci biir day daal di jóg wóoy ma li ci gën a ne xamalan la wax ma ko suppu pitax mbay suppu pitax mooy lan suppu pitax mbay suppu pitax non dañuy dem ba ci gars yi ñu jox ko ay ay ay ay ay sukub yu ndaw def ci ay sukub xam nga mais du na ngi suppu pitax ay dégg kon kuy togg xam nga maam dama ñëwoon sa kër di defar publicité alib mu toggal ma cere joo xam ni ba léegi cere jaa ngi ci internet bi mais dëgg la ah, ah. kon dañuy defar ay supp pitax indi ko golden lépp fay joxe ay sukub oui mais mbay man man nag ma wax la suma préféré ah, mooy man dëxinu biiru xar yooyu. ci biir soirée bi pourtant daf fay am. daf fay am dëxinu biiru xar imaginez fecc baara mbay ban ne noonu la daal di toog laal sa consommation ñu jox la benn palaatu dëxinu biiru xar bu ndaw. am limon am limon ngay paccal. saa yoroo kaani sa pos <laughs> saa yoroo kaani kaani ak ak ah? benn bouillon sa pos. am nga kaani ah. ah? kon nag mbay kon à tout à l'heure mi ngi noonu maa ngi def sama Samba Sembe defa Samba Sembe maa ngi ñëw Golden ñu daje Golden point ana ñoom ñëpp ngay xaar ana Baye Demba ña ngay xaar ñoom ñëpp nga foofu ñoom ñëpp ngay xaar désormais chaque lundi euh, Golden tey bu ñu weesoo fi vous êtes magnifique wii euh, bu ñu weesoo tey korite gi tous les lundis Golden point e la mais lundi bi dañ koy def lundi bële la. incha ko gis si télé bi. incha allah waaw Mbaye. Fatou Guewel mooy yegg si léegi. ah xam nga day waajal anniversaire am. la diva anniversaire bi le 29. oui xam nga anniversaire Fatou Guewel mësta yomb ci réew mi. mais anniversaire faatu Guewel saa amee yaa ko toj. dëgg la ndax mbay day ñëw ci kaw seen ba am lu mu def. wallaay ànd ak waa 5-5 am lu mu def perturbe scène ba. soog génn oh, et de passage. dama koy naan happy birthday dëgg la joyeux anniversaire. loo ma dund doyul. na dund ba énervé. waaw waaw parce que barki Demba Ndiaye la doon fêté anniversaire am xam nga moom. faatu sama jabar la sama jigéen la. et sama lépp la. lenn rek moo ko yàq juufeen la dafa bëgg ceeb <laughs> ndax boo di sa fille chérie Ablaye Dieng. maa la ko wax doomam caane lañ ko tuddee. ndeysaan et donc Boubacar daal. Fatou Guewel et le 29 le 29 ma. dana métti Maas. ah Ousseynou Couture. moo ma defal bii grand boubou. kan ci Maas Ousseynou Couture Ousseynou Couture. xam nga Maas bu defee nii. mbay euh, bokkul ak bokkul ak ba may sol ca Fatou Gueye. mais non lii lii ëpp xam nga nag. ah waaw waaw dañu bokkul ak ba ma war a sol ci Fatou Gueye kii rakku euh, Modou Fall la. Ousseynou moom moo yàq moo yàq Fallou. waaw ma rakku rakku rakku fal Fall. Modou de ah. passage ma saluer ko. Modou Fall ndax nag dafa ma yónnee ñaari. trois pièces yoo xam ni sunu benn xarit sunu xarit nit bu baax. waaw muy nag euh, maître Ndiaye notaire tu vois. ne ma mbay lii maa la ko waaw Moustapha waaw nit bu defee lu baax danga koy wax. moo ko def et di saluer ñëpp nag la gendarmerie. douane ah suma xarit suma rak ñu koy ñaanal jàmm muy euh, Mouhamed. commandant euh, Cissé yaa ngi dégg police bi ñoom ñëpp ñoom ñëpp. ni ngi leen di ziar di leen big up parce que nag yéen a ñuy aar ak armée bi. et Boubs vive notre pays de la Teranga le Sénégal. Eh, mi ngi noonu daal yàlla na jàmm yàgg. amiin amiin monsieur Mbaye maa ngi ñëw léegi léegi.